dañoo sëñ bi dafa wootee euh, ñaan gi pour ci ci ci période bii nga xamante ni euh, dañ fee dañ fee dañ fee dañ cee gis ni mbas mi mu ngi avancé sëriñ bi woote bis bi pour li koy gën a taaral nag moo di ñu ñëw euh, mu ñaax population yi ñoom it ñu mën a yeggale mottali mébét boobu noonu ñaan-ñaan gi waaye nag ñu respecté geste barrière yi respecté geste barrière yooyu day laaj aussi nit ñi jël seen i masque day laaj nit ñi am ay gel ci biir jumaa ji ak ci biir Touba ak ci kuréelu ñaan yëpp moo tax tey jii liggéey boobu noonu loolu aussi dafa bokk ci tournée bi ndax tournée bi malgré que ni ci période du mas lañ ko defee waaye nag dañ ko defee nag ci période boo xamante ni euh, période bi dafa dañuy jëm ci ay élection locale élection locale nag ku ko xam xam ni président de la république moom lañu àndal Macky Sall ci Benno Bokk Yaakaar moo tax fu ñu dem rek dañuy rencontrer leaderu bokk Benno Bokk Yaakaar yi fekk leen ci seeni i gox ñu nit ñu rassembler fii nag Touba dañoo am chance wu am euh, collectif Benno Bokk Yaakaar boo xamante ni ñoom ñoo bokk ndey ak ndax euh, sëñ Kam yi moom Lamine Gueye nii moom moo fi toogal parti socialiste waa Basirou Gaye toogal fi AFP Mamadou Mar Ndiaye toogal fi force nouvelle patriotique waa URD nekk fi waa euh, LDR yeesal nekk fi donc waa man euh, euh, manko nekk fi donc parti yi nga xamante ni ñu ngi wër président de la république yëpp ñoom it ñu ànd tey ñu nit ñu ñëw seet si leen waxtaan ak ñoom ñoom ndax ñoom it suñuy relais ci nga li ñu xamante nii ñoom ñoo ci jëm ci sensibilisation ci mas ci ci mbas mi mais aussi pour que ci mbindum euh, kayitu judd di mbindum inscription sur les listes électorales pour que euh, élection yi nga xamante ni ci lañ jëm ñoom it taxawaay bi nga xamante ni Euh, war nañ ko cee taxaw ñu ñu man ko cee taxaw. def ngeen benn rencontre bu fructueuse avec les femmes mais aussi avec un vieux tey après rencontre boobu noonu ban kàddu nga yëkkati. waaw xanaa am ci satisfaction bu mag ndax euh, réceptivité bi nga xamante ni am nañ ko ci jigéen ñi ndax jigéen ñi mbootaay jigéen ñi dañoo am solo ndax ñoom ñoo yor famille yi ñoom ñoo yor ndaw yi ñooy dem ci marché yi ñooy dem ci xew yi ñooy dem ci lépp donc pour di bu ñu tàmbalee liggéey bi ci ñoom ci sensibilisation ñoom sion bu ñu bu ñu bu ñu joxee seen kàddu wala bu ñu comprendre enjeu yi ba mën a euh, wattu rek danañ mën a wattuwaale njaboot yëpp moo tax euh, kilifa gi ñu fi fekk aussi ñu nit ñu rafetlu bu baax a baax a baax nit ñu teeroo ñaanal ñu sant aussi initiative bi nga xamante ni def nañ ko donc ñu nit euh, am nañ ci satisfaction bu baax a baax a baax ñun suñu base affective fa ñu dëkk actuellement Kër Massar la nag dañoo taxaw président defal ñu loo xamante ni lu lu lu am solo la daaw nege ni daaw lu fi ñëwoon def euh, digoon ñu departement tey jii lépp loo xamante ni président digoon nañu ko tey taxawal nañu ko euh, ñun nag ñu nekk fa nag bëgg a delloo njukkal président ñu gis ni ñun ñii en tant que parti allié ñu gis koo xamante ni mu ngi biir Kër Massar di liggéey ñu gis ko daaw ci mbënn mi amul benn leader boo xamante ni la mu def ca mbëndum Kër Massar moom def na ko muy madame la ministre Aminata Assome Diatta ñu gis ko tamit ci euh, euh, euh, tabaski bi ñu gis ko ci korité yi gis ko ci sociale bi ba ci bërki démb ñu gis ko ci sensibilisation mu mu mu ñàkk masaar Massarois ñu nit ñu dox biir Kër Massar di préparer suñuy élection locale fu ñu dugg ñu nit ñu ni ñu vraiment bëggoon nañ daal ngeen ànd ak madame la ministre Aminata Assome Diatta ngeen liggéey ci la ñu waxtaane ba def suñu coalition dugg ci biir Benno Bokk Yaakaar ñu nit ñu jàpp ni moom it mu doon déclarer sa candidature la candidature de Benno Bokk Yaakaar ñu nit ñu fekk si ko euh, ñu gis nañ ni am na ci ñoo xamante ni tey jii ñu ngi jóg di ay yenn euh, responsable jóg di fustiger moom démarche boobu nga xamante ni moom mu ngi ko taxaw ndax moom démarche bi mu taxawal mooy jege askan wi mooy dimbali leen ci tabaski bi mooy dimbali leen ci ci ci ci ci ci inondation yi mooy jege askan wi ba nga xamante ni aujourd'hui elle est la leader incontestée de Benno Bokk Yaakaar à Kër loolu nag am na mu neexul ñemu mu neexul nag li tax neexu leen moo di ba ba ba ba président soxlaa ba askan wi soxlaa ñoom ñoo daw ba daw terrain bi daw tere social bi ba heure bii nga xamante ni ñëpp jóg nañ j'interpelle directement le maire j'interpelle ki nga xamante ni moom moo di Omar Top j'interpelle les certains responsables yi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi instrumentaliser ay xale pour que décision yi nga xamante ni président mu ngi ko jël ci liste électoral bi dans la représentation ñoom it ñuy ñëw ndax te jii ndawal président bi mu président yónni ku ko ku ko ku ko ku ko saaga wala nga def ko dara président nga bëgg a te ñun nag boo yëkkatee euh, ay kàddu yu ñagas jëmale ko ci président de la république dañuy taxaw ndax madame le ministre tey gii moo tax euh, euh, campagne bi nga xamante ni def na ci moom it accompagner nañu ci bu baax pour que ñu nit ñu ñaanal président fii ci Touba sëriñ bi dem nañ ba ci moom yóbbu fa suñu suñu suñu suñu matériel bi nga xamante ni moom mooy dans la riposte Covid 19 bi. ñu nit ñu jox ko ko ci turu madame la ministre moom it pour mu ñaanal ko pour mu ñaanal Sénégal pour que mbas mi yem fi pour que inondation yi tamit ñu am nawetu jàmm moom madame la ministre Aminata Assome Diatta moom loolu moom mooy vision loolu moom mooy moom mooy mébétam loolu moom mooy li nga xamante ni moom la bëgg mooy rassembler au-delà même de Kër Massar toute la famille du président de la République moom rassembleur la te loolu lay def biir Kër Massar loolu nag ñu ngi ko ci ñu ngi koy seedeel président de la république seedeel nañ ko sëriñ bi léegi pour mu ñaanal ko ci li nga xamante ni ñu ngi koy sumb yàlla defaral ñu ci jàmm